DKRTV.com et KhalimaSN.com vous présentent votre chronique d'actualité avec Sedina Sek. way your mon cher président ginnaaw ba mën na nuyoo am yaakaar rek ni bataaxal bii dina la fekk ci jàmm man la benn ndaw bu ñenn ci ay sénégalais de yoon yónni ngir rek ma mën la yeggee bataaxal bii di ay mbëbët ñuy tënk ngir rek mën la ko yeggee président diaspora bi ba tey ñi ngi taxaw di xaar ndax rek yaa leen diggoon quinzième région waaye seetlu nañu boobu ba léegi ci ay fitna ci ay ërtël ci ay bund xatal lekk la ñu nekkee président xanaa yógo doomu sénégal yi ñuy xëy di boom saa su ne te du mujj fenn suñu autorité consulaire ñoom jaruñoo sóoraale donte burul ñëpp sax ñu ci bari ay génn yi sax moo leen ëpp njëriñ président diaspora boo xamante ni heure bu xëyee mi ngi gën a dund ay jafe-jafe ay fitna dem nañ sax ba limbi bi ku ko nar a lim sax seetool boy waaye nag lu ñu naan ñambaas yàqul sër bu ko dul yëbal xanaa rek ñu jéem a lim tuuti le 20 décembre 2013 boom nañu ci Italie kii di Mame Balla Khoule le 1er février 2013 kii di Cheikh Ndiaye ñàkk na bakkanam ca Athènes dem sax ba ci kaawu Pape Khali Ndiaye xoolal ma kii di Pape Moussa Seck rawatina bés bu tiis bi di mardi 22 août 2013 kii di Charles Paul Alphonse Ndour ca Tanger ren di furet lañ ko def ba tey kenn xamul fu mu mujj xel daal di dem ci kii di Massar Ba mu ñuy joytu noppee gu ñu ci conditions yu doy waar la ñu ko fàtte xel dem si kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ba Mamadou Diaw Mamadou Diop ak ñeneen ak ñeneen mujj xel mënut a fàtte président xoolal ma kaaw Mor Sila ñu jàllale ko ci troisième étage policier espagnol yi bëgg ñoo gëmloo ni kii dafa xaru loolu ñuy naqarlu ba ñu demee ba enquête bi sori ab ndof la ñu jiin kenn ci policiers yi ngir rek ñu mën a jël dossier boobu daañu koy tëj daal ci biir tiroir yi bu dej kaaba bi nag di Fatum El Hadj di Sénégal yëpp naqarlu mu nekk lu doy waar président xoolal ma condition yi ñu fàttee doomu Sénégal bi ci daan rek dooleem lañ ko fekk lii yëpp doomu Sénégal yi di ko dund ci ko patt pataaral nguur gu métti sax la ñu nekk turu 15e région bii di ma saf lekatu kasse may fatali rek ni naxul ay bëy gannaaw ba sax mom lañu dëkk yi jàppee ba ku tëral jox sa morom motax suñu autorité yi wu ñu dëgg la ñun tamit am nañ ci part de responsabilité ndax kat dafa jot ñu def temps mort xoolaat suñu comportement def temps mort jëma a yeddaat suñu bopp ndax kat ab réew jàmbur boo fa nekkee da ngay xool lu chaat réew mi nangu nga di ko jëfee lu muy aaye nga di ko moytu bañ jël sa yaakaar yépp wékk ko nguur ndax kat tukki choix la ndax ñun kenn ku ci nekk ambassadeur nga ci réew bi nga nekk ndax ñun ñooy suñu vitrine réew donc ay modèle lañ wara nek def suñu devoir donc ka suñu droit ndax kat président jarul sax ñu lay fatali nal lepp lu jëm ci walum sécurité publique mo xam sénégalais yu nek biir réew ak bitim réew obligation la ci nguur mu mën ko assurer sam sen karangé ndax yi acte de barbare yi jëf ñaaw amana buñu ko defon yeneen réew yi seen njit fipp nañ ndax kat fu la jaay dakar wala ma ñam jéxal ko pat pataral bi suñu autorité yi nekké nak laaj da fay daal di direct nan est ce que notre diplomatie n'est pas malade de ces diplomates am nañ ci sax ay doomu sénégalais yi nga xamanteni ñak nañ li di seen séjour ndax rek ñàkk ay talon passeport la majorité des sénégalais de l'extérieur une carte d'identité expiré na ci boobu instant sous suñu autorité consulaire. yi ñi ngi jël consulat yi jàppee ko permanence Manam, de dëkkee politique suba de ci ngoon di ci xëy di ci gont président Lolo moi lu xew ci diaspora bi moo xam ñu wax la ak ñu bañ la ko wax am na si sax arrogance insolence pànk ak ñàkk kersa gu mat sëkk la ñu ciy boole ñeneen ñi ñoom waxuma la sax jot leen téléphone waye jot ci consulat au téléphone sax dombu bu la ministre des affaires étrangères étrangers et des Sénégal de l'extérieur moom kooku dañu ko bërgal di ministre boo xamante ne kenn mësul gis fu mu waxee jëm ci lii di Sénégalais de l'extérieur mu mel ni sax ku leen allergie ci Sénégal président Nak, ndax jotul nga jël dossier bi en mai jéem a rek résoudre problème yi gannaaw ba ñu sekk dossier bi montré nañ seen limite kon kat diaspora bi du si la war a sukkandiku pour avancer président lii di joytu ak ñaxtu ci lu ëpp ci Sénégalais yi nekk bitim réew di ñaxtu kon nag di ñaan yàlla bataaxal bi fekk la ci jàmm ngir rek nga mën ci bàyyi xel wasalaam